seet lañuy xaar ngir ñoon ñu dem mbokki téléspectateur de la 2STV ñoo ngi leen di nuyu seen émission gént gi tey ñoo ngi leen ñëwal ci fi nga xam ne mooy ferme Ismaïla Ndong mu nekk fi nga xam ne mooy ñàkkul rab tey nag ñu bëgg waxtaane li nga xam ne moo jëm ci wàllu poulet waaye bu ñu jógee ci loolu dinañ wax seen rubrique santé ñu invité ci nag tey ki nga xam ne moom mooy Safiatou Goudiaby bi dinañ séq ak moom waxtaan séq ak waxtaan ki nga xam ne mooy docteur Konaté ma ànd ak sama caméraman wan leen sujet yi li nga xam ne moo am fii nga xam ne mooy ferme bu Ismaïla Ndong nekk fii ci ñàkkul rab bàyyi la nga nuyoo li nga xam ne mooy mbokku téléspectateurs yi ñu dugg ci waxtaan wi. bon maa ngi nuyu téléspectateur yëpp di nuyu waa 2 bi di nuyu tamit aussi waa élément di nuyu aussi sama mbokk éleveurs yëpp. Ismaïla yow lan moo la boole ak li nga xam ne moom mooy wàllu élevage. bon élevage nag dama ko mës a bëgg defe naa. je pense que aussi ma xaw ci côté waaye ñi nga xam ne yàlla dafa ma boole ñoom ñu nekkoon ay vétérinaire bon ku mel ne docteur Ali Cissé ku mel ne aussi ku mel ne docteur Malick Sène ku mel ni aussi docteur Konaté NMA en fait ci ñoom nag laa toogee di waxtaan ba xalaat ne war naa a dugg ci filière bi ma dugg ci filière élevage bi. vraiment ngi ci ñi ngi sant et vraiment mi ngi avancé bu baax a baax ci benn problème pour le moment. damay nag euh, lu ëpp nag di def sax euh, ñaari branche yëpp di def chair aussi di def pondeuse mais lu ëpp nag dama gën a concentré wu ci pondeuse waaw pondeuse nag aussi pratiquement dama ci yàgg parce que maa ngi ci def 12 ans. pour 12 ans nekkul 3 jours wala 4 jours waaw je pense que moo tax damay préféré débuter poussin euh, ba mu poulet ba mu dem ba dugg ci production ma xam ganaar yi ma yor en fait euh, ban façon ganaar la après en fait ci lay gën a amee confiance pour mun a euh, kontaan dal wàllu poulet yi tey ñaata ñaata ñaata nga dugal fii. trois mille moo fi nekk. waaw 3000 moo nekk fii. 3000 moo fi nekk. waaw euh, tey euh, ñaata ñaata jours la ñu am boo actuellement am na presque boo xoolee presque boo xoolee 2 mois 21 jours. 2 mois 21 jours 2 mois 21 euh, jours. fan la li nga xam ne mooy wàllu production bi. bon en fait ak ay produit NMA je pense que tout le temps man damay préférer aliment NMA. Mhm. su ma ko jëlee rek presque à trois mois 25 jours damay commencé gis production signe de ponte en fait gannaaw di commencé nen. ci ngay xamee nag ganaar ñuy commencé di def petit à pour commencer dugg nag ci production bi. wàllu wàllu nen yi qualité nen bi bëggoon nañ ko xam ak coquille bi. waaw waaw ko loolu usine ko yor te pratiquement énément pratiquement bokk na ci industrie de volaille yi nekk fii au Sénégal yéen pratiquement sooy consommer seen aliment doo am lu ëpp ay accident de pont wala nen bi mel na nii wala nen bi mel na naa loolu je pense que usine moo koy defar ci qualité aliment bi ba nga xam ne yow boo consommé aliment bi en tant que éleveur di nga xam ne sa qualité nen bii nga jël yóbbu ko ci marché bi di ko jaay client yi dinañ ci kontaan am ci ay Euh, ci wàllu commercialisation bi mën nañ cee wax tuuti. effectivement boo demee ba def investissement bu mag bi. Mhm. Euh, rentabilité ngay xaar. Mhm. ndax maanaam investissement bi nga def yaa ngi ciy gis sa bopp am na rentabilité. tout à fait normal ñu ngi ciy gis bopp parce que yàgg nañ ci marché bi maîtrise nañ ko xam nañ ko xam nañ clients yi xam nañ ci liggéey xanaa dañ naan ku ñu accompagner. ba ñu war a mën a jógee ci lii def ay batterie àgg fi gars yi àgg je pense man sama xalaat loolu la. et je pense que président dina ci xalaat ak le nouveau ministre là bi ñu nommé dina mun a bàyyi xel secteur volaille bi ba éleveurs yi mooy tamit di ci gis seen bopp parce que ñun moom la ñu am aussi ci dañu fier tamit ci lii ñu nekk très sincèrement parler wax dëgg loolu ñu ngi ciy ñu ngi ciy ñu ngi ciy ñu ngi ciy sant. waaw ku wax ku wax wàllu poulet euh, xam ne bëri na ay feebar yoo xam ne ñu ngi fi mën a gàllankoor. Euh, ndax yi loolu yaa ngi ciy bàyyi xel ndax yow amoo mësoo ci am ay jafe-jafe ci lu jëm. waaw loolu ñu ngi koy bàyyi xel parce que préparation bi ñu ngi ciy am le plus souvent ay vétérinaires yi nga xam ne pratiquement bala ngay insérer band yi mel nii dañuy leen di gis waxtaan ak ñoom aussi ku mel ne en fait ay docteur Konaté wala ku mel ni ay saalif ci am wala ku mel ni ay Malick Sène j'en passe bëri na ay docteurs yi nga xam ne man miin naa leen am naa ñoom ay relation ñoom boo demee waxtaan ak ñoom dina la wax ne la salle bi désinfecté ko defal lii ak lii bind la ay ordonnance yam ne boo demee di nga jënd produit yooyu defar salle bi préparé ko soo ko préparé maintenant nag li des moom mooy couvoir bi couvoir bi lay jox poussin moom ci boppam fa la problème bi nekk su couvoir bi assuré que ne poussin bi la jox am na qualité e je pense que doo am problème problème bu am mooy maladie virale te maladie virale ko téye mel ni ko yii des mooy maladie virale yoo xam ne day ñëw pratiquement état jël na ci ay ay yi xam ne pratiquement ñi ngi koy préparé ba nga xam ne am na vaccin yoo xam ne bu ñëwee jël ko le reste mooy bu duggee état poussé prophylaxe bi ngay demee xool ganaar yi étape par étape bu ñu tollee ci période bi war naa def gumboro bu fii war naa def Newcastle bu ñu tollee fii war naa dépeke ganaar yi étape par étape ngay dem ba ganaar yi dugg phase de ponte je pense côté boobu moom vraiment ñun rassuré wu nañ ci ba am benn problème quoi sinon vraiment yow du yow éleveur bi jógewul sa salle wala aussi mun na jóge sa salle aussi tamit parce que marek mun na fa nekk dëkk fa lu yàgg ah aussi tamit mais lu ëpp dañ koy xalaatee que couvoir fan fa fa cuuj ba jógee fa la jëlee maladie bi nga nekk ak moom ba certain âge mu dem ba ay 4 mois nga commencé ko gis boobaa day naqaree faj et en fait da ngay risque am perte perte bi mooy que nga defoon ci 20 millions 30 millions réformer ganaar bi pratiquement aussi wàllu feebar boobu aussi am na leneen loo xam ne mën na ko indi. parce que souvent seen surga yi. dañuy mhm. jóge ci tool bi dem ci tool bële. Mhm. waaw bu fekkee yow surga bi yor na ay ginaar ñëw dugg sa biir tool wala mu euh, maladie bi nekk ci biir yéreem euh, yi nga xam ne moom la ñëwee sa tool loolu aussi mën na indi euh, suuf suuf pour indi yenn yenn maladie. waaw man le plus souvent sama tool moom gis ngeen ko et je pense que bu ngeen paree étape par étape mënuñ koy jël te xam ne bon hygiène bi mi ngi fi et man dama ciy veille bu baax a baax. kenn mooy nekk ci tool bi wala deux personnes ñoo fiy nekk du ma d' accord ñu dem ci beneen liggéey ñëwaat nekkat sama liggéey le plus souvent mooy dañuy concentré sama liggéey ma waxtaan ak ñoom ba d' ci li nga xam ne dama fay ma fay leen ko ci lu jaar yoon ñu liggéey ko ni mu waree man aussi ma encadré leen nekkat ak ñoom ci biir heure bi ma fiy ñëw mooy ngoon gi je pense que dama am yenn activité xam ne ci laay nekk le plus souvent mais le la nga xam ne moom mooy problème en fait ma ko régler le plus rapidement possible bu baax a baax a baax a baax a baax fu liggéey bi sax foofu la nekk. waaw ah, foofu la nekk euh, tey ñoo ngi wax euh, am ngeen ministre bu bees. Euh, waaw tey yow boo doon wax tey ministre bi lan yan attente ngeen di xaar. waaw ministère de l' élevage ak production animale. waaw gis nañ ne léegi fi mu nekk nii ndaw yu bëri ñu ngi futteeku ñii ñu ngi dugg ci agriculture ñii ngi dugg ci élevage te nit bu yëngu ci dara day xaar. lu ko accompagner mën a booster li nga xam ne mooy filière bi pour mu mën a dem ci kanam tey lan ngay wax yow. waaw moom ministre li ma koy wax dama koy njëkkee ci président di ko féliciter ci mandat bi mu am vraiment yàlla na ko jik te jeunesse bi dégg nañ ko. kon dafay mandat bi nga xam ne dina ko gérer ñu baal ma sax débat bi du politique mais pratiquement li nga xam ne li nu war a mën a wax la pour aussi jàllale message président dégg ko surtout muy mandat bi nga xam ne dina ko xaw a jagle jeunesse bi et je li may conseiller jeunesse bi ñuy jog di dugg ci gaal yi di dem ay feneen ak feneen mais filière bi yaatu na na ko jéem a yaatal éleveurs yi su leen ko yaatalee aussi jox leen ay motuwaay yi nga xam ne mun na am ay tool jënd ko def agriculture ou ñu def élevage mais c'est mieux ko xam nañ ko Sénégalais yi léegi concentré wu nañ ci léegi xam ne liggéey bi am nañ ay industrie de volaille yi xam ne macha allah ñi ñuy def qualité aliment bi nga xam ne wax dëgg boo xoolee amuñu ci benn jafe-jafe doo fi gis benn éleveur mu ne usine bii jox na aliment am naa problème surtout ma muy usine bi nga xam vraiment ñun ñi nga xam ne dañu ciy liggéey ak ñoom ci mbiru aliment ak ganaar ñun xam nañ qualité aliment bi nga xam ne mi ngi ñu koy jox ñàkku ñu fay di dem leb suñuy million wala wut suñuy million ñëw jël aliment bi nga xam ne ñu ngi koy jox suñuy ganaar mu am ay problème wala ñu dugg ci marché bi naan dañuy dem wari aliment non dugguñu foofu kon président ñi ngi lay lancer message que ndaw yi jeunesse bi liggéey bi yaatu na nañu koy yaatal partenaires yi ñëw aussi ñu mun a ànd ñoom liggéey nañu yaatal jeunesse bi aussi tamit wax dëgg ñu mën a am ay crédit ci banques yi mu woyof lool aussi président na ci bàyyi xel jeunesse bi nag sonn nañu sonn nañu ci kaw dañuy jóg dem ci banques yi xamuñu taux d'intérêt xamuñu banques yi mu demee vraiment banques yi teg leen lu vraiment doy na waar nañ ci gamme pondeuse bi euh, ñu ngi ñëw nag ci fi nga xam ne mooy ginaar yi nga xam ne mat nañ commencé nen Euh, comme ni ma leen ko waxee woon sànq seen rubrique santé euh, dafa nekk rubrique bu am solo akaarloog nag ki nga xam ne moom mooy Safiatou Goudiaby moom nag euh, technique commercial la nekk fële nga xam ne mooy NMA Safiatou maa ngi lay nuyu maa ngi lay fay di nuyu téléspectateurs yëpp tey nag dañ fi woon pour wax ci élevage poulette jusqu'à l'entrée de ponte bon poulette yi pour euh, avant ça ñuy wax dugg ci ci élevage bi déjà dañuy wax côté prophylaxie sa veut dire côté euh, nettoyage ferme bi nu muy demee balaa poulet yi ñu koy euh, indi ay 24 heures wala 72 heures avant l'arrivée des poulettes mooy bu ñuy nekk poussin il est préférable ñu nettoyer bien avant sax def vide sanitaire mooy ferme bi nettoyer ko. def euh, ay antibactérien yëpp yu war ak désinfectant yu war yëpp ak euh, assurer chauffage euh, kii bi local bi ñu leen di def au moins trente cinq degrés boo xamante ne ñoom bu ñëwee ils vont être à l'aise pour seen développement bu baax prophylaxie bi aussi am na ay vaccin vaccin yoo xamante ne J1 lañ koy def jusqu'à vingt semaines yoo xam ne dinañ euh, NMA suñu cahier de ponte am na cahier de ponte yu ñuy jox éleveurs yi yoo xamante ne euh, ci biir cahier de ponte yi def nañ fa benn plan de prophylaxie benn plan standard yu ñu war a respecter mais plan boobu comme li ma ko waxee rek c'est standard éleveur bi ci boppam dafay rapproché wu ci vétérinaire bu koy suivre wala technicien bu koy suivre par rapport ak milieu bu mu bu mu nekk wala endroit bu muy def euh, élevage bi ñu xool jéem ko adapté parce que prophylaxie bi dafay dafay dafay dafay varier selon les zones prophylaxie bi buñ ko respecté donc on peut prévoir am ay ay ay yu nekk en bonne santé yoo xam te ne dinañ développé correctement sans problème ba ñu am âge euh, poids bu ñu soxla ak maturité sexuelle bi donc ak aliment euh, NMA yi poulet yi euh, dinañu gaaw a àgg ci seen maturité sexuelle seen crête yi dina gaaw a génn tout donc à à 16 semaines dinañ commencer pondre moins de 16 semaine sax am na yoo xamante ne à partir de 15 semaines dañuy commencer pondre am ay nen euh, NMA am na gamme gamme aliment yoo xamante ne c'est spécialement composé pour pour poulettes yi ak pondeuses pour poulet yi am nañu deux types d' aliments am nañu aliment premier age yoo xam ne de J1 jusqu'à deux mois lañ koy euh, utiliser am beneen euh, aliment poulette deuxième âge yoo xam te deux mois lañ koy commencé utiliser à partir de deux mois jusqu'à l'entrée de ponte mooy bu ñu commencé nen à partir bu ñu commencé nen nag am nañu aliment pondeuse yoo xamante ne ferñeent yëpp yu ñu soxla yu kii bi di soxla poulette bi di soxla dina ci nekk dina tax ba nen bi dina dëgër te dinañ am nen yu am calibre bu rëy te ponte bi tamit dina dina dinañ am pourcentage yu ponte bu bu élevé ba pic de ponte bi dinañ ko teel a am te dina egg jusqu'à 90 ou plus pour cent de taux de ah, di leen di wax rek euh, ñu jën góor góorlu surtout côté prophylaxie bi parce que buñ ci nay. prophylaxie bi le vaccin yi ngay def normalement ak nettoyage matériel bi ak tout ça yooyu bun ci nay dañuy jënd euh, produit produit yu war di ko def parce que euh, une bonne poulette euh, mooy mooy mooy tax ñu am pondeuse bu baax te pondeuse bi mooy tax mu mu mu mun a nen nen yu baax ak am calibre yu doy ak pourcentage de ponte bu doy donc di nga ko mën a jaay ba mën see gis sa bopp. Euh, ñaari cahier yi la ñu am pour gamme ponte bi am nañu cahier poulette ak cahier de ponte cahier yi comme cahier poulette bi ci biir cahier bi am na courbe bu ñu leen di présenter courbe bi dina tax nga mën a xam ndax sa poids yi ngay yi nga am à chaque instant à chaque semaine di nga xam di nga di nga di nga mën a xam ndax yaa ngi ci marge bi ou pas nga xool ndax poids yi nga am baax na bu baaxul nga jéem a xool nan ngay rectifier ci alimentation bi yokk li ñu leen di jox ci aliment bi mais aussi programme lumineux bi c'est très important bu fa gars yi di ko respecter bi cahier de ponte bi la moom assi am na courbe de ponte bi boo xamante ne di nga xam pic de ponte bi ban période la ak commune de semaines ñaata pourcentage de ponte nga war a am boo ci boo amul loolu nga xool si quoi problème nga approché sa vétérinaire comme ça dina la mën a la jox ay dina la mën a jox ay conseil yu war sa vétérinaire soit sa technicien bu lay suivre NMA tamit am na ay techniciens yu nekk euh, ci terrain bi du suivre éleveurs yi di leen di jàppale am appui con euh, euh, di leen defar ay appui côté conseil ci ci ci élevage bi et tout. tey ñu fas yéene waxtaanee ak yéen ci euh, élevage yu poulette future pondeuse boo waxee poulette rek wax euh, sa xel dem ci pondeuse parce que poulette mooy dooni pondeuse te une bonne pondeuse c'est d'abord une bonne poulette pour nga am bonne pondeuse nag ou bien d'abord une bonne poulette dafa am lu mu laaj mooy euh, nga tàggat poulette ba nga xam ne bu demee bay nen dina mën a joxe li ñu ko soxlawee. une bonne pelette nag mooy pelette bi nga xam ne bu waree nen am na pois boo xam ne moo war a méngoo ak mu war bi ñu nenee mu waree nen âge bi mu war a nenee âge boobu tam du néew wala mu ëpp mu waree nen tam bi ñu koy épointé épointage tam dafa war a jaar yoon parce que épointage bu jaarul yoon ginaar bi du mun a lekk su waree nen tam dina am poids boo xam ne pois à la ponte boo xam ne poids boo xam ne dafa correct bu ñu waree nen. parce que bu nekk effectif am na lu ñuy wax homogénéité mooy dañuy maasandoo di màgg nga xam ne màggaay bi dafay ànd ñëpp donc loolu dina jouer ci ponte bi ak taux de ponte bi ba pare mu am un bon statut sanitaire mooy dafa war a wér parce que balaa moo mën a nen dafa war a mën a lekk te balaa moo lekk dafay wér wér donc boo boolee six points yooyu mooy poids à la maturité sexuelle age à la maturité sexuelle ak capacité de gestion parce que peut bi dañ ko tàggat ba nga xam ne su waree lekk cent gramme oubien cent di grammes bu waree nen dina ko mën a lekk loolu nag mu ngi aajowoo ci naka lañ koy tàggatee ba nga xam ni ci euh, ñeenti weer njëkk yi dina mën a tàmm li ñuy wax la notion de repas parce que boo amee poulet ci ñaari weeru njëkk yi dafa war a màgg normalement am un bon poids te loolu loo koy may mooy un bon démarrage mooy matériel yi doy waajal bi poulailler bi set ba nga xam ne du am jàngoro poussin yi bu ñu ñëwee nga toppatoo leen nga nga war a toppatoo nga xam ne lépp loo xam ne aagewoon na ci mangeoire abreuvoir démarrage poussin yi lumière bi chauffage bi mu jaay doon donc ba un mois il faut un bon poids nekk muy lekk normalement à partir de deux mois jëm kaw am na aliment pour le deuxième age nga xam ne aliment boobu euh, riche na en son dina permettre poulet bi développer jaboom nga xam ne bu demee en phase pondeuse dina mën am un bon une bonne capacité de stockage d' aliments parce que poulet yi dañ leen waral tàmmal une bonne alimentation ak une bonne gestion de l' mooy notion de repas mooy lekk euh, ndékki reer mooy joxe aliment bi deux fois par jour maximum trois fois par jour nga xam ne du ñu tàmm yàq aliment parce que ginaar bu tàmmee gis aliment chaque instant rek. lekkam du sawar donc day mos tëdd mos tëdd te loolu bu dee àgg en pondeuse bu waree lekk cent dix grammes yi pour mën a nen dafay yéex donc dañu tàmmal ginaar yi xiif nga xam ne bu waree lekk repas bi rek lekkam dina gaaw lu ayoo ci vaccination bi nag vaccination bi nag dafa am importance parce que poussin pondeuse bi bu nekkee entrée en ponte rek wootu jël benn vaccin donc laaj na éleveur bi rapproché wu d'un partenaire avec un programme vraiment adapté mu koy jël ni nga ko war a jëlee ak ni nga koy defaree parce que vaccin acte médical la donc vaccin ki ko war a def da ko war a mën ba pare def ko ni ko war a defee am na vaccin buvable yoo xam ne day def ci ndox bi am na yoo xam ne injectable la bu ci nekk rek am na ni ñu koy defee te nga rapproché wu un technicien dina tax nga mën a aar sa alal ba nga xam ne bu demee en phase pondeuse di nga mën a rentabiliser sa investissement parce que boo xoolee poussin pondeuse bi ñu ko dugalee ba muy nen. à peu près di leen dikkee lu néew-néew euh, juróom-benn téeméer ak euh, juróom-benn fukk mooy 3300 ba 3500 donc loolu nag boo ko mënee bëggee rattraper ci pondeuse bi mooy il faut tàggat bi baax ba nga xam ne bu commencé nen. dina mën a nen sans am benn problème. waaw docteur euh, dañu bëggoon nag ñu ñëw ci li nga xam ne moo jëm ci wàllu orientation stratégique Euh, xool li nga xam ne mooy améliorer constante ak ak qualité. waaw loolu loolu NMA si la dëkk mooy amélioration continue ak adapté offre yi par rapport la demande ndax boo xoolee client pondeuses yi ñun dañuy def gamme boo xam ne à chaque fois dañuy xool naka la ñuy maximiser la production ak tam nak la ñuy diminuer les charges mooy def aliment pondeuse boo xam ne parce que boo jëlee itam pondeuse bu entrer en ponte ba cinquante semaines. am na ñaari ñaari soxla mooy mu ngi màgg mu ngi nen donc foofu éleveur bi il faut muy joxe aliment bi jarul muy économiser aliment parce que aliment dafa war a nekk lu doy mu satisfaire deux besoins yi donc énément am na aliment pondeuse boo xam ne c'est adapté ci période boobu léegi bu dee ba cinquante semaines ba mu nekk foofu amatul besoin màgg donc li muy am mooy besoin de pont li ñu soxla mooy aliment boo xam ne dafa bëri calcium dafa bëri phosphore ba xam nen bi dina am un bon dina dëgër du gaaw a toj donc NMA à chaque fois dañuy adapté euh, li ñuy defal ci liggéey ci aliment bi ba nga xam ne day méngoo ak li nga xam ne moo nekk terrain bi ak li nga xam ne éleveurs yi moom lañ soxla en terme de rentabilité ba nga xam ne nag bi ñu demee ci période tàngaay bi ou bien période yoo xam ne dafay laaj changement aliment ñun dañ koy boole ci suñu liggéey ba nga xam ne dina tax euh, lépp lu ñëw ci élevage bi rek dañ ci mën a sooraale mu éleveur mu mën a euh, optimiser ay ay dépenses waaw énément euh, engagement yi ngeen jël ak pour accompagner ñi nga xam ne ñoom ñooy éleveurs yi ak clients yi nga xam ne euh, ak assistance technique bi nga xam ne moom ngeen war a def vis-à-vis ak ñi nga xam ne ñooy éleveurs yi. waaw ñun éleveurs dañ leen considérer comme des partenaires parce que éleveurs yi plus nga am élevage comme nii mu nekk au sol trois mille ëllëg mu dem am batterie dem 10 000. bis mi gën a màgg rek bis élément di gis boppam parce que am na ñoo xam ne ñu ngi démarré mille instant yi boo demee seen tool ñu ngi dem ba mille am na ñoo xam ne ñu ngi démarré bâtiment ouvert nii boo demee léegi seen tool ñu ngi am batiment fermé lépp loo gis rek benn lay commencé wàññi bi dem ba ci kaw loolu nag il foo nga am ñu lay teg ci yoon bi te yoon boo xam ne vraiment day nekk yoonu jàmm yoon di la xelal ba nga xam ne di nga mën a am Euh, li ñuy wax rentabilité sa activité ba pare à chaque fois di optimiser donc éleveurs bu ñu investir ay millions dañuy soxla ki leen koo xam ne da leen di chaque fois di jaar seen tool di leen wan ne nii mën ngeen ko defee nii pour gën a jëriñu lii boo leen ko changé nii dina am njëriñ parce que euh, nit mat nit euh, nit vraiment xel du xel matul donc parfois li ñuy wax bët bu bees bu ñëwee ci tool rek dina am lu muy gis. donc loolu moo tax ENEMA am ay techniciens yoo xam ne dañuy wëkki tool yi am ay cahier yoo xam ne cahier poulette ak cahier ponte yoo xam ne éleveur bi warul fàtte di ko remplir parce que looy bind bind mooy des boo amee sa cahier ay poulette date bi mu dugg ba ba nga koy réformer bis bu nekk da nga war a bind à chaque fois bind aliment bi ngay joxe bind ñaata moo euh, dee bu amee ñaata ngay ramasser ki par jour. ñaata aliment la ñuy lekk par jour comme ça boo paree di nga mën a tënk à chaque fois di xool évaluation technique bi ak évaluation économique comme ça di nga mën a di améliorer comme ça une amélioration progressive et énormément on travaille vraiment sur ça pour ce pour le progrès de nos éleveurs. docteur xam naa ne laaj bu mujj bi dañuy ñu ngi waajal li nga xam ne mooy préparation korité bi am na bandu bandu yoo xam ne gars yi ñu ngi koy waajal ci li nga xam ne moo jëm ci wàllu ginaar ndax xam nga Sénégal moom li ñuy consommer ci ginaar bëri na rawatina korité euh, ban conseil ngay wax ñi nga xam ne ñooy éleveurs yi euh, di dugg ci pour ñu mën a am qualité à temps pour li nga xam ne moo jëm ci wàccaayu korité bi. waaw loolu moom boo xoolee période korité bi ak euh, koor gi li ñuy wax période de pic la période de forte demande en en poulet au Sénégal donc li may conseil éleveurs yi mooy affaire yi du course de vitesse da koy waajal mooy préparer sa poulailler ba mu set ba nga xam ne doo nga di au moins jàngoro dina fa néew ba pare poulailler bi nga xam ñaata la mën a jël xam danse bi ñaata la mën a jël. nga teel def sa commande poussin parce que éleveur itam dañuy bàyyi ba euh, date bi yegg si ñu naan aw ma poussin da nga koy waajal liggéey da ngay waajal teg sa programme léegi nag boo préparé sa poulailler euh, dugal sa poussin yi nga war a dugal ci date bi nga yor ko ni nga ko war a yore mooy un bon démarrage euh, def li fi war li ci war a nekk yëpp matériel bi vaccination bi comme nag temps yi ñu ngi dem ci période tàngaay bi ngeen di conseil mooy bu tàngee ñu bañ a alimenter. heure yu nga xam ne dafay tàng parce que ginaar du ñax comme nit donc heure bu commencer tàng ñu teggi aliment bi am na ay garab yoo xam ne tam dañ koy def ci ndox bi pour gën a mën a dimbali ginaar bi ci tàngaay bi moo aliment aliment tam dañ ciy def yoo xam ne tam vraiment dina tax période tàngaay ginaar bi même su koy yëg tam euh, dina néew trop ci am impact ci performance yi parce que dañ ciy def produit yoo xam ne ay électrolyte ay genre bétaïte nga xam dina permettre éleveur bi vraiment tàngaay bi même bu doon am euh, performance yoo dafa baax trop sedday même bi wàññeeku itam du wàññeeku boo xam ne itam dina vraiment am impact ci euh, investissement bi donc loolu lay conseil élevé di leen wax ni affaire yi liggéey la nañ ko teg ci yoon du course de vitesse ku nekk na nga dem ak say moyen dem ak li nga mën a dugal ba pare nga yokk ni nga ko war a yore ba nga xam ne ci jàmm di nga mën a jaay ba pare am sa bénéfice parce que loolu mooy njëriñu liggéey. dama leen di encouragé gën la cee pousse man dama débuté à zéro gëm ko parce que looy dugg tamit te gëmoo ko doo ci gën mën la joxoon ay milliards doo ci gën da koy gëm xam ne man war naa mën a réussir ci lii exemple rek entre parenthèse xool départu Pape Ngom war ko mun a gëm grand bi dafa départ ci lii gëm ko xool fu mu agsi tey kon donc kon damay wax jeunesse bi war nañu mun a gëm seen bopp xam ne tey lii ñu nekk ñun am nañ ci wàll am ci place war ci mun a àgg lan ca bëgg ñu am ko ci man je pense que man noonu lay fonctionner te gis naan aussi président dina ci bàyyi xel a ah, aussi tamit di encourager le président directeur général de la NMA Ahmed Amar gis naan aussi tamit ni nga xamee ne mi ngi koy encadrer éleveurs yi ak le directeur commercial Claude Demba Diop ak docteur Konaté docteur Watt ñu nu encadrer éleveurs yi pratiquement lu ëpp dañuy dugg ci tool yi di visiter qualité aliment bi di xool éleveurs yi nga xam ne aussi am nañ touti problème ñu accompagner leen côté technique côté matériel côté lépp kon donc ñun ñoo ngi remercier le président directeur général Ahmed Amar bu Tigal man dama fier ci NMA parce man ay produit am liggéey samay kanam ça fait de douze ans maa ngi ciy gis sama bopp. bët bu set la mbokki téléspectateur de la 2STV ñëwaloon nañ leen fi nga xam ne mooy ferme bi nga xam ne mooy ferme Ismaïla Ndong nekk fii nga xam ne mooy ñàkkul rab. ñu doon waxtaanee nag lépp loo xam ne dafa jëm ci wàlli poulet boo waxee poulet da ngay wax ginaar yi nga xam ne ñooy tàmbali ñu dugal leen bu ñu paree nag ñu war a jublu nag ci tàmbali commencé am ay nen yu am solo gis ngeen rubrique santé bi nga xam ne moom lañ leen defal waxtaan ceeg ki nga xam ne mooy euh, Safietou Goudia bi euh, nekk euh, technico commercial. waxtaan nag ki nga xam ne mooy docteur Konaté nag yor lépp loo xam ne moo jëm ci wàllu santé animal fële ak docteur Fall ci fële ci NMA. gis ngeen nag tey li nga xam ne moom lañ leen proposé ñoo ngi waajal li nga xam ne moom mooy korité bi aussi ñuy wax éleveurs yi ñu ànd ak xel pour li nga xam ne moo jëm ci wàllu poulet de chair yi ñu am qualité boo xam ne qualité bu am solo ndax Sénégal toll nañ foo xam ne nit ñi koriteeg tabaskeeg yëpp dañuy consommer li nga xam ne moo jëm ci wàllu ginaar muy poulet de chair mu nekk lu am solo ñuy jaajëfal nag ki nga xam ne mooy ministre de l'élevage bi fi nekkoon muy Aminata Mbengue Ndiaye ci liggéey bu am solo bi nga xam ne def nañ ko waaye di dalal jàmm ki nga xam ne mooy Samba Diorel Ka mi nga xam ne mooy le nouveau ministre euh, de l'élevage ñoo ngi koy dalal jàmm di ko ñaanal réussite ci li nga xam ne moo jëm ci wàllu élevage mbokk yi ñoo ngi leen di jox dig daje seen yeneen émission gétt gi te di leen ñaanal jàmm